amul fu mu yem ndax li war a tax nit ki war a sant bari na ndax fekke rek ak tal doy na sant te ñoo ngi naan yàlla borom bi subhanahu wa taala jërëjëfati yow mi ñu may ñu def ko daaw fekke ko ren ñu ngi koy sant cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee wante amul fu mu yem kon nag li ñuy def rek bala maa jox oustaz Mor ñu baal ma rek ma dugg si nuyu suñu kilifa kër gi di PCA Youssou Ndour monsieur Youssou Ndour di ko nuyu di ko ziyaar moom njabootam yépp di ko ndokkeel ci weeru koor bi ñu jox ko nuyoo bi nag mu tasaareel ñu ko ci kilifa yi nekk ci kër gi yépp nga xam ne buñ ko joxee le directeur général Birane rek mu séddale ko ay pàppam ak i ay frèram góor a jigéen mag ak ndaw xattaa ba ci ki nga xam ne sax ma nga toog ci buntu ba di garder kër gi su ko defee ñu nuyu waajur yi di leen ziyaar ña ci nekkandi ci dund ñu leen di ñaanal yàlla fan bu gudd ak wér yaram ñi génn àdduna ñuy ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu leen yërëmal bu ko defee ñu ñaanal suñu kilifa diine yi jox leen seen wàccuwaay du leen ndokkeel si weeru koor bi jël nuyoo bi jox ko suñu doom macha allahu taala ay sa Maamu mu sedd leen ñu ko joxal ñu ko xalif généraux yépp nga xam ne dinaa ko bàyyi ak Oustaz Mor ak Oustaz Assane ñu lim leen kenn par kenn oustaz ñuy jaale itam suñu am di jàmm yi suñu xarit yi rawatina suñu waajuru bopp yi nga xam ni heure bi daaw ñi ngi toogoon seen salle wala seeni chambre taal télé yi jàkkaarloog ñun di ñu ñaanal ren ñu nekk taxta sara nekk ca barzak ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala fa ñu nekk yàlla na leen yàlla yërëm te yëkkati leen yóbbu leen dëkkal leen ak suñu sang bu tedd bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama defal ñu seen xubuur yooyu mu nekk rawdatun min riyadil janna su ko defee rekk damay jël kàddu gi rekk ci sama ndeejoor jox ko oustaz Mor mi nga xam ni xam naa namoon naa ko waaye yéen téléspectateurs yi wóor na ma ni yéen a ko gënoon a namm su paree rek mu jël lenge yi jox ko Oustaz Hassan ñuy jéggalu nag ci euh, xaw a tardé bi xam nga rek problème mu machine la bu doon suñu sago heure bañ leen waxoon ñu demare ci waaye yàlla dafa def mu xawoon a am tuuti jafeñ-jafeñ looloo tax ñu soog a commencé nii pour ndokkalante ak yéen rekk ziyaarante ak yéen nuyonte ak yéen kon oustaz Mor namoon naa lool lool lool lool xaaral ma jox la kàddu gi rek nga dugg ci ziar beeg nuyoo bi en attendant nga jox sunu doom alaaji asan oustaz Mor Thiam allahuma laka alhamdu hamdan laa yanfadu awaluhu wala yanqatiu axiruhu allahuma laka alhamdu fa anta ahlun an tushkar wa tu'bad wa tuhmad wa salaatu wa salaamu ala sayyidina muhammadin sayyidi shakirin wa ala kulli alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi ihsaanin ila yawmi diin mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di ko teg ci nuyoo sunu jigéenu bopp Seyda Fatou Bintou di tofal suñu nuyoo ci nuyoo ñi mu nuyu ñëpp ziyaara leen tabaarakallahu waaye ndokkeel ummatu muhammad yëpp sallallahu alayhi wa ci koor gi ginnaaw biñ ci ndokkelee Seyda ndokkeel ci oustaz Hassan ndokkeel ci ñi nga xamante ni ñu ngi bokk ak ñoom di liggéeyandoo ba tax waxtu wi ñu toog ngeen man dinu nu seetaan tabaarakallahu di ñaan borom bi subhanahu wa Eh, li nu dëkkmal yàlla na dàq li nu jóge amiin bu dee ci wér bu dee ci yor bu dee ci mucc bu dee ci jaamu gu ñu nangu lu mu mën doon li nu dëkkmal yàlla na nu dàqal li nu weesu borom bi mën na ko ma dalika ala bi aziz benn waxkat dafa waxoon ni ma bayna tarfati aynin wa intibaahatiha hmm. yuxayiru llahu min xaalin ila xaali yi diis yëpp yàlla mën na ko wëlbati ba dootul diis lépp woyof kon nag tabaarakallaahu sayda ñu ndokkeel leen ci dajawaat gi ci weer wu tedd wi ci daara ju mag ji ndokkeel ci haj asan ci weer wi ak daara ji tabaarakallaahu noonu la ñuy nuyoo nag suñu kilifa diine yëpp kilifa diine yëpp ñu nuyu leen man jàpp naa ni sax ni àdduna bi tëddee léegi soo jëlee nuyoo bi teg ko ci loxo kenn rek ko ca des ku ci nekk mën na caa gis boppam mm-hmm. te loolu mooy wane ni diine ji jenn la mm-hmm. xibla bi benn la mm-hmm. téere bi benn la li ñuy liggéeyal di ci œuvre di ko liggéey ci ginnaaw kooku mu yonent bi kenn la sallallahu tabaarakallaahu kon nag ñu nuyu leen ñoom ñépp ndax ku lim mën nga desal wante nag bu fekkee nee nañu ñu ngi leen di nuyu ñëm ñëpp. dugg nañ ci kum gi. kon nag buñ ci settee ñenn nag. dañ koy delloo ci tanazzalul malaaykatu war ruuxu ndax malaaykatu yi ñëpp ngi ci dugg waaye war ruuxu ñëwaat na kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di delloo Seyda kàddu gi mu jox ko Haaj Asan mu nuyoo ziara. di dogal ngant nag ñi nga xam ne ñu ngi ñu doon xaar ci suba ba léegi ndax bande annonce yi. dañu waxoon 9h. wante al mar'u yu dabbir wallaahu yu qaddir lii ki di bëgg ak li yàlla di dogal euh, bokkul bëgg-bëgg bi moo nekkoon ñu teel a tàmbali wante borom bi lii la lii la dogal xam naa la waaj a waxoon ka ka daan tàmm di yi dafa amoon benn waay mu tàmm di xaaraan ci kër saareen yi benn bis nag ndekete borom kër gi dafa xaw a soxor tuuti siis mu seen waa ji ñëw rek mu song soxna si ñu commencé di xeex mu tekki ndombaam seen waa ji egsi rek mu tekki ndombaam commencé dior waa ji naan ko tey ji nag moom lii nga fi fekk <laughs> waaye yéen tamit comme yéen ngi doon xaar ci suma ba léegi waaw lii rek ngeen fi fekk mooy si technique la ñu sante ko borom bi subhanahu wa taala yàlla na nu yàlla may ñu ñawaat te bu ñu ñëwaatee nu ñu ko bëggee waat ñu defee ko noonu oustaz jërëjëf oustaz Mor macha allah taala xaw nga wàcce sax sama stress parce que bi may commencé ku ma xool sax xam ne nekkuma mais comme li yaa déggeen doon wax rek yàlla na ko yàlla yërëm foo mu tëdd mbotaan la ak travaux yi nekk fii koŋ-koŋ gi moom euh, mu ngoogu rek ak euh, début ramadan bi itam xiif beeg mar bi booloo ci moom daal li si boole yëpp daa bëri tey su ko defee kon Oustaz Assane euh, ñu njaayeen yaa ngi lay déglu nag moom man njaayeen yi xam nga man deseetuma benn yére ndax njaayeen nii moom Euh, comme sama yaay Aminata euh, Ndiaye madame euh, Badiane moom moom moom ak Tayacine Fall madame Fall Tayacine Ndiaye ñoom ànd ñoo may taxaw njaayin yooyu ñoom ñoo ma sauvé moo tax man lu ma neex rek laay def njaayi ni dañ maa baal ba pare kon Oustaz Hassan tafaddal mashkour <laughs> est que du taatu bool ba bu <laughs> tax nga stressé <laughs> waaw wax nga dëgg de loolu sa kanam zayyana quluba awliyaihi bi bi anwaari lwifaaq wa saqa asraara ahibbaihi sharaban ladiza almazaaq wa alzama quluba alxaaifina alwajala walishfaaq fala yaclamu linsanu fi ayi dawaawini kutiba wala fi ayi lfariqayni yusaaq fa in saamaxa fa bi fadlih wa in aaqaba fa bi adlih wala ictiraada ala almaliki alxalaaq wasalaatu wasalaamu ala ashraf alxalq sayyidina wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain dhawi almaqami almahmud fi lyawm almashhud alladi jumica fihi alanbiyaai taxta liwaa'ih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin Seyda ginu gannaaw bi ñu delloo santaat borom bi subhanahu wa taala comme ni nga ko waxee sànq si li mu ñu jàppandalal ñu fekkee weer wi nga xam ne moo gën si weer yi di chahru ramadan al mubarak al karim di weeru ngëneel weeru yiw waaye itam weeru jege borom bi subhanahu wa taala ndax comme ni nga ko junje am na ñu ñu woorandooloon daaw ren yàlla dogalu ko si ñoom bu dee da ña jiitu la yàlla leen yàlla yërëm bu dee ñi yàlla teg nattu ak jàngoro ak jafe-jafe yàlla leen ko yàlla teggil si daraja weeru koor gi nga xamante ni tàmbali nañ ko waaye di julli tey sëlmal si ngën ji mi def sayyiduna muhammad mhm. sallallahu alayhi wa sallam mhm. moom mi nga xam ne képp ku mas a yëkkati kàddu rek moo la gën dëgg la ngay doomu aadama wala ngay jinne wala ngay beneen bindeef mhm. moom mi nga xam ne si la borom bi subhanahu wa taala wàcce si moom aaya bi nga xam ne si la farataale si ñun koor te ñu wàcc si ñi koy man te amuñu ngànt bu sharia nangu ba ila yawmi diin yal na yàlla julli te sëlmal si moom ak mboolem jabootam ak mboolem saxaabaam Seyda ndokkeel la bu baax yow itam fa tabarakallahu macha allah di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér. amiin amiin yàlla defal la ko bàyyi la fi nga yàgg fi lool. ndax olof dafa léebu ne oustaz Mor. lu am rafet su amul loon mu ñaaw. macha allah te jataay bi nekk na jataay ba nga xamante ni tey télévision Futurs Médias moomatu ko. Sénégal moomatu ko waaye képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah. wa anna sayyidina muhammadan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wareefu ramadan da nga ko jël def ko sa yëfu bopp ak mboolem doomu aadama yi ndax li si nekk si jàngale diine li si nekk si gindi li si nekk ci li nga xamante ni itam moom moo di fàttaliwaat nit ñi lu leen di jégale seen borom dëgg la ziar bu baax oustaz Mor Thiam fa tabarakallahu moom itam comme ni ma ko doon faral di waxe rek faqihu daar di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér yokku xam-xamam ziar bu baax ñi nekk si réew mi yëpp yëpp ziar bu baax ñi nekk si kër gi yëpp di fi yëngu di fi tuur seen ñaq ngir dundeelu lew yàlla barkeel leen barkeel seen njaboot waaye ndokkeel jullit yëpp ndax weer wi weeru jullit yi la weer wi weeru lislaam la comme ni ñu ko waxoon ci bande annonce bi waaye itam weer wi weer la wa nga xamante ni day tax nit ki gën a jegeñ borom bi subhanahu wa taala kon fi may jeexale rek delloowaat la kàddu gi mooy lépp lu ñu fi woor yàlla na ko yàlla nangu amiin lu ñu ñaan yàlla na ko yàlla nangu amiin amiin ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim yàlla nañu yàlla may ñu yeggale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin nga xam ne buñ siy génn dañuy set wecc ak ay bàkkaar mel ni liir ba nga xamante ni day soor a juddu ñaanal kilifa diine yi itam yàlla guddal seen fan xalif généraux yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyi leen fi ba si kanam a kanam a kanam ñuy tatti njaboot gi sayda <coughs> tafaddali mashkura jërëjëf Hassan macha allah taala oustaz Mor gis nga Assane ni mu ubbee. macha allah euh, macha allah am na solo euh, kontaan nañu suñu xol neex na ci torop euh, ñu wax rek ne ñun daal sant yàlla rek moo ñu war xam nga borom bi subhanahu wa taala buñ demee ci sorotu Ibrahim muy wax naan baada auzubillahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim wa in tauddu nicmatallahi la tuxsuha suñu doon wax xéewal yi ñu yàlla defal ñun jullit ñi wax dëgg yàlla oustaz suñ ko doon lim duñ ko mën a jeexal ndax euh, dafa am solo rek yàlla borom bi subhanahu wa taala baaxee ñu ñu fekkewaat xéewal bi nga xam ne comme ni ma ko waxoon ci bande annonce bi rekk man saama ramadana imaanan wahtisaaban ufira lahu ma taqaddama min zanbihi yàlla bu la baaxalee yéene bi rek boo tàmbalee benn bés ak lu mu mënti doon ak lu ci mën a xew rek yow am nga yoolu ku woor weer wi yëpp mm. yàlla jéggal la sa bàkkaar yi weesu yëpp ndax daawu defoon nañ ko yàlla baal ñu suñu bàkkaar yëpp mm. ah xamuñu ci diggante bi ndax njuumte am na te mënul ñàkk ndax nit matul yàlla ñu ñaanaat koor gi ñu nekk yàlla nañ ci baalaat suñu bàkkaar yëpp ba ñu set wecc ba nga xam ne bés bu ñu naan tey la iidul fitri ñuy def zakatul fitre fekk ñun ñëpp weex nañu tàll tàll tàll tàll comme bés bi ñu ganee àdduna te loolu war nañ koo mën a am ndax yàlla mi ñu xéewalee itam ñu fekkee war de mu may ñu ni'matul siha ak ni'matul li may ñu xéewalu wér gi yaram donte ne sax wér gi moom à cent pour cent munul nekk waaye alhamdulilahi rabbil alamina bi nga xamee ne mun nañoo bajantu ba ba ñëw toog fii te tey am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay néeg yu lëndëma lëndëm hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi ci ay euh, wéradi goo xam ne daaw wooroon nañu mais ren mënuñoo woor hmm. loolu yëpp tax na nag nit ki di war di profito si euh, euh, si si ay wéram ci ay ay xéewalam yu ko yàlla may ku yàlla may nga fekke koor gi nii yàlla may la nga nga wér nga profito si njàngum alquran mi Mm-hmm. profito ci qiyaamul layli mm-hmm. profito macha allahu taala ci joxe ndogu yi mm-hmm. rawatina comme ni nga ko faral di waxee ne borom alal euh, jaamu yàllaam bi gën a foor mooy muy dimbali ay néew ji doole euh, macha allahu taala gis ngeen suñu kilifa diine yi am na ci ñoo xam ne nee nañu digle nañu ne nañu dem si jàkka yi joxe ay ndogu nañu def ay waxtaan nit ñi profité dëgg la ba léegi mbas maa ngi ci réew mi kenn du ko weddi waaye mbas moomu terewul itam ñu war a gën a mën a yokk jaamu yàlla bi ndax nag weeru promotion la weer la woo xam ne loo def yàlla borom bi subhaanahu wa da koy jël di ko multiplier di ko multiplier di ko multiplier ba fu mu ko soobee moom rek xam allahu alam kon nag bu la yàlla baaxee bëri na koo xam ne daa wooroon na ren bi mu jubsee dem na médecin ne ko munoo woor bëri na koo xam ne ni ma ko waxee sànq rek ba suñu waajur yi man ak yow bokk nañ ci te oustaz moo di ñàkkul ki am na ku mu dem muy suñu yaay yi nga xam ne heure bii daaw ñu ngi toogoon jàkkaarloog ñun ren bokkuñu ak tant d'autres ñaata junni junniy doomu aadama ñoo fekkee woon daaw te fekke wuñu ren kon yow mi nga xam ne yàlla baaxe na la nga fekke oustaz Mor war ngaa profité bu baax a baax a baax ndax même sax ku nekk gis na ne nit tàmbali na te eggul waaye ñun ñoo koy tàllal loxo yàlla na ñu may ñu eggali. loolu tax na ba nga xam ne GFM rek xam nga tey moom bésu ubbi la xéewal yi nga xam ne doon na ko baaxoo joxe muy teraanga Sénégal ñu teg macha allah chaque jour un million boo xam ne dinañ ko séddale macha allah téléspectateurs yi nga xam ne ñooy woote ci émission yëpp nag la ñun dinañ ci am macha allahu taala. Euh, lu mat vingt cinq mille vingt cinq mille yoo xam ne dinañ ko joxe ci ñiy dugg par juróomi junni ñun la ñuy joxe mais am na itam deux cent tissus yu góor ak yu jigéen yu luxe yoo xam ne itam dina dimbali njaboot gi euh, ñu mun koo séddale yu góor ak yu jigéen bu ma kenn woon nag di ma wax naan ma euh, li ngeen di def lu dafa kii ku nekk am na droit fa nga nekk di liggéey say partenaire jox la ay cadeau nga ne lii de duma ko jël di ko dugal ci sama kees waaye dama koy jël def ko sukkaru koor jox ko ñi nga xam ne ñu ngi dugg ci téléphone yi euh, bokk na si ñi jàppale noonu sant yàlla boutique ñi nga xam ne macha allahu taala ñoo nekk fële ca marché Gambie nekkaat yi itam fële joxew nañu ay numéro téléphone dinañ ci gën a dugg Touba marché Ocass 77 906 28 95 ñu joxaat numéro yi nga xam ne nag ci ngeen di mën a woote

ñu bëri itam macha allahu taala xam nañ ko te itam dinañ ko jàllale ci écran bi di nuyu tamit suñu partenaires yi nga xam ne rek toujours ñu ngi ànd ak ñun itam ci di ñu jàppale ku mel ni alaaji xalifa mbergaan moom it numéro dina jàll xam naa oustaz Morik oustaz Assane ñoom dinañ jàllale loolu ci biir émission bi bu ñu demee rawatina juróom bu jigéen boobu nga xam ne Adja Ndeye Dieng Adja Kumba Dieng mi nga xam ne tey macha allah taala nii ma def nii moo ko def macha allah dama ne woon sax dama koy sakkanalal ba suba ma daal di koy sol waaye ñoom madame baak ñoom um rek ne ma jàllale ko rek ak itam macha allah taala mbokk yu baax yi nga xam ne ñu ngi ci yoon bi ñoom it di waaj di ñëw ndax ñëpp fas yéene ànd ak ñun kon oustaz Mor dama lay wax ne la <coughs> tey tàmbali nañu wooru weeru koor bi tàmbali nañu sax démb ñu bëri tàmbali nañu démb ñu bëri tàmbali nañu tey loolu nag lépp ñun dañ koy jàpp ne rek xéewal la xam naa ni xeej na loolu ah xeej na feebar la boo xam ne ba tey wéragul ci suñu biir réew mi mais yàlla na wér jàmm ñun gaal li ñu gën a amal importance mooy ngëneel li nga xam ne rek nekk na ci weeru koor ñuy ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa taala li nga xam ne suñu xëyee yéene ji nga xam ne moom la ñu nekkal ba keroog weer wi di jeex ñu mbëmbësal ko rek ba nga xam ne bu subaa nag ñu dugg ci mawdu yi macha allahu taala te xam ne ren dina ñu dem seeti kilifa diine yi dinañ dem ci daara yi ndax suñu doom dinañu ko defal muy oustaz Mohamed euh, Mahmoud Cissé Mahmoud Cissé dina Mahmoud Cissé dinañu demal ci këru diine yëpp góor ak jigéen nag ndax bul fàtte ne oustaz euh, euh, suñu yaay yi dañoo am ay yaay yoo xam ne tele bi rek mooy seen dund bi yoon am na ci yaay yoo xam ne depuis dix ans wala ma ne huit ans ñu ngi leen di nuyu dinañu dem fekki leen sargal leen jël seeni image ak seeni kàddu mu indi ko fi chaque jour mu am kenn ku ñu dugal incha allahu taala loolu bokk na itam ci taraanga yi nga xam ne télévision Futur Média dina leen ko jox ci wareefu Ramadan kon oustaz dama lay bàyyi rek ci sargal beeg nuyoo bi ak yëg-yëg bi ak gan gi nga xam ne moom lañu am gan gi ku ko am nan nga ko war a teeroo ak nan nga ko war a terale oustaz Mor Thiam waaw tabaarakallah Seyda kàddu yi rafet na rawatina kàddu yi oustaz Hassan ubbee eh, lii benn la ci xeetu sant yàlla ndax ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu ñuy seetaan di ñu topp ci jamono bu nekk eh, suñu wëllëre bële nekk ca Gàmbi di Adja Awa Thiam ñu nuyu ko ziyaar ko di soppee émission bi di suñu soppee ak yeneen soppe yi nekk ci àdduna bi yëpp di wane seen mbégte ku lim di nga desal ni ma ko waxee sànq waaye ñu ngi wane ni ñun ak ñoom ñoo bokk jataay bi Seyda euh, yàlla li mu bëgg mooy ku ko yëg wala fi dañuy wax ne li sàcc bañ la yàlla bëgg mm-hmm. mais li yàlla bëggit la nit bëgg mm-hmm. donte sàcc ci nit ñi la bokk. sàcc bu ñëwee di sàcc si bëggul ku ko yëg. parce que buñ ko yëgee dafay yàqule. doomu aadama tamit dafa bëgg ku ko yëg. moo tax mu naan la am nga sa xew mi te waxoo ma ko. wala yaa ngi ma romb nuyu woo ma. li mu ci jublu yëpp mooy nga bàyyi ko xel. mais sunu borom tamit dafay bëgg ku ko bàyyi xel. bëgg gi muy bëgg ku ko bàyyi xel eh, daf ca bokk. bu defee bu la defalee teraanga mu yëg nii defal na la teraanga nga wan ko ni ko defal nga ma teraanga parce que dañuy wax ni nëbb teraanga siñ la ci weddi nëbb teraanga siñ la ci weddi maanaam màndarga la ci weddi moo tax yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis bu la yàlla defalee teraanga manifesté ko waxoon na Muaz mu ne ko dama lay conseiller Muaz ibn Jabal yonent bi ne ko dama lay conseiller dama lay conseiller saa soo sëlmatee sëlmalatee julli neel allahuma ainni ala dikrika wa shukrika allahuma yàlla may ma ma bañ a nekk jaam maanaam ma bañ a goree di nga dimbale ma ba nga dimbale ma ba soo ma defalee teraanga ma di ko wax ba noppi di ci di la ci njukkal donc kon lii nu yàlla defal dafa mérito borom bi ñu yëg ni defal nanu ko mooy lan mooy daaw noo ngi fi woon am na ñu nu fi bokkaloo nekk ci kaw suuf kilifa yu bari kilifa yu bari yu diineek yu àdduna ku ci nekk ak façon bala yàlla yóbboo ñii ci jàngoro ji ñii ci jàngoro jële ñii ci leneen sax lu dul jàngoro. yàlla yóbbu na leen. mort subite. waaw yooyu yëpp comme mi ngi am sunu borom bàyyee ndu nu fi. war na noo wan boroom bi nag ni ko jërëjëf yëg nanu ni bàyyi nga nu fi lu sant ko. léegi nag mu indil lu beneen teraanga yàlla mënoon nañu fi bàyyi te du nu du nu fekkee weeru koor. wala bu nu fekkee weeru koor du nu bokk ci ñiy béggee koor gi di ko woor. gis nga am na ñu woor démb alhamdulilah am na ñu tàmbali tey. foofu du ñàkk ñu am lu ñu corriger tuuti du ñàkk ñu am lu ñu corriger dëgg la yàlla nee na wala yazaaluuna muxtalifin mënul leen di dëppoo tout le temps mais mënul leen di dëppoo tout le temps du tere ñu def lu nuy dëppale mas naa wax lu mel noonu ma man yonent bi ne woon ne xeetam sallallahu alayhi wa sallam dinañ séddali ko juróom ñaari fukk ak lu topp ma ne waaye taxul nag nu war a jóg pour teqali ko dañoo war a def effort pour ànd euh, Seyda séentu weer séentu weer moo am fu mu yem xaw ma ndax dégg nañ wala déet dëgg la séentu weer moo am fu mu yem waaye jot information ci weer amul fu mu yem mhm. aka neexoon nag ñu dégg ko rek su ko defee ñu jàll. dëgg la waaw. bu ñu nee jant bi sono ñi ngi séentu weer nga ñëw taxaw ci fi jant bi di sowe. séentu weer bu bu lëndemee séentu weer heure jeex na. jeex na mais jot information ci weer loolu amul fu mu yem man nga dem ba digg ba cëg ca suba sa. ñu dab la ne weer feeñ na nga nga jàpp sa koor wala nga jàpp sa korité donc kon jot information du am fu mu yem ñun nag bu ñu séentoo ba 22h rek wala 21h dañuy naan tëj nañu bunt bi xabaar dootuñu ko amaat loolu la ñu war a corriger. mag ñi dañ daan dem ba digg bëccëg ñu dab leen ne leen weer feeñ na ñu dog ñu jàpp koor googu. loolu daan naan. ñu dem ba ci digg bëccëg ñu jàpp ñu dab leen ne leen weer feeñ na ñu wari. loolu daan naan léegi nag tëj gi ñuy tëj loolu yooyu rek la ñu war a corriger. boole ko ci yi ñu corriger pour mu gën a baax. loolu bëggoon naa ko ci ne bi ci des nag mooy bu koor duggee. Euh, da dangay am yéene bu sell ci ni fas yéene naa jàmm yàlla jàmm ko jàmm bu sell parce que koor du lu nuy tàmbali di ko sànni yonent bi dafa wax ni ku yéene ci yéen topp yàlla na mottali yéene ba mm-hmm. mais woor di jours ne man sama fii la sama doole yam wala woor une semaine ne fii la sama doole yam loof na yooyu dafa mat di dafa mat di li te bi ngay commencé koor gi da nga di damay fas yéene woor weeru koor bi boo amul ngànte rek bu tax doo woor yéene boobu nga si siñenteeg pacte sa borom ci ne ko fas naa yéene def da nga koy fas yéene def te yéene boobu mooy koor gi ba koor gi jeex xaaj asal jazakallahu alfa xayr jërëjëf Oustaz Mor jërëjëf Seyda si introduction muy muqaddima bi nga xamante ni def ngeen ko ci li nga xamante ni moom moo di suñu gan ndax ñun ñi fi desandi comme ni nga ko waxee dañ fi desandi te dañuy dem yàlla na yeex rek la ñuy naan yàlla na yeex li Seyda di ñaan rek naan yàlla na àpp soriyanto mhm. yàlla na àpp soriyanto mhm. moo tax di di teel a ñaan mhm. naan bu ma amee nangami at rek mën naa dem yooyu yëpp wóorul ndax at yi day dem ko waxoon yëpp génn nañ ci am <laughs> koo xam ne dana a dafa xëroon moom daal âge bi yonente bi sallallahu alayhi am bu ko amee rek am ñu ko fi doon moom na léegi nag yàlla dogal ba fi mu nekk nii âge bi boo jege na nee na génnaat na si mas naa mas naa dégg Serigne Cheikh Tidiane Sy yàlla yàlla yokk leer nee na mu mu koy wax ci benn gàmm mu ne da eh, ñi ñëw ñi ko ñëwaloon duñ ko ñëwaloon ne ko ñaata at nga bëgg mm. nee na mu wax leen mm. nee na affaire bi jege si ñu ñëw ni ko ah li nga waxoon jege si na de. mooy léegi te nga cee yokkaat tuuti rek. <laughs> kon nañ ci yokkaat boobu moom duñ ci yokkaat tuuti rek mais dañ ci yokkaat lu tuuti rek. doublé doublé doublé ko ba triplé ko quadruplé euh, ko dama am benn xarit boo xam ne euh, Nabou Seck de passage koy nuyu su ma waxee mu ne ma yaa Seyda nañu ñaan cent vingt ans. bàyyi 60 ans yi ngay ñaan te ñu ñaan vingt ans dama doon xuloog moom waaye nag depuis nag 60 yi jege ba léegi wax dëgg yàlla nag maa ngi koy bëgg a topp si loolu li xale yi naan cenc maayin waaw waa cenc naa maayin bu yàgg depuis keroog <laughs> anniversaire ba mu ngi noonu comme dañ fi desandi nag waaw am gan goo xamante ni suñ borom subhanahu wa taala daf ñu ko indil <laughs> gan gi euh, loxo yi kajoor la su ma ko sañee waxee noonu ñu jéggal ma mm-hmm. maanaam day weesaloo daf ñuy indil teranga waaye itam ñun dañ ko war a teral mm-hmm. buy dem bàyyil ñu fi teranga bi teral bi ñu ko war a teral mooy dafa am na nga xamante ni noonu lañ ko war a gàttandoo noonu lañ ko war a teertoo waaye itam noonu lañ ko war a dundee niñ ko war a dundee war ko teertoo noonu war ko gàttandoo noonu du lenn lu dul ak ragal yàlla boo xamante ni day nekk si ñun biir waaye itam day nekk si ñun biti si naka tàmbalee nga ko sànq sa seenu ba si naka si xam lii ñu borom bi subhanahu wa defal lan la ndax ñi jiitu seen ñàkk xam-xam wala ña seen ñàkk alal wala seen ñàkk gis-gis wala seen ñàkk kàttan wala seen ñàkk koom du moo leen fi bàyyi dumoo moo leen yóbbu astaghfirullah ñi dem ñàkkuñu fayda ñàkkuñu fulla ñàkkuñu pas-pas ñàkkuñu diina ñàkkuñu ragal yàlla dañu yéeg si otoraay bi yegg gaar ba ñu waroon wàcc mu jot ñu wàcc ñii nga xamante ni itam ñun ñi fi desandi am kàttan mm-hmm. wala xam-xam wala bëri pexe bàyyiwuñu fi mm-hmm. borom bi subhanahu wa rek la soob yàlla na yàgg léegi nag teranga boobu ñu yàlla defal andiwaat beneen muy weeru koor weeru koor boobu nag dafa am lu mu àndaale muy li ma wax sànq muy nga weer ko si njëlbéen gi ba fa mu yem ñëw borom bi subhanahu wa taala ne la lépp loo xamante ni defoon nga ko si njuumte wala rëcc-rëcc wala lu noonu tey jii nii raxas naa ko ba mu set yaa ngi mel ni liir boo xam ne tey day soor a gën a si àdduna te saydaa oustaz moo junj nga ko junj na ko léegi yow junj nga ko tey jii nii lu bari tey jii nii nit ñi ñu ngi koy gàttandoo weeru koor te du noonu si jëfin si waxin si doxalin bu njëkk bi nga xamante ni tey jii nii ñun ñëpp dañ si war a bàyyi xel te weeru koor laaj na ko mooy li nga xamante ni mooy julli macha allah julli julli oustaz Mor dafa wax sànq lu am solo wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith gis nga yàlla xéewal bu nekk ak na nga ko say sant dama dégg Alaaji Ibu Saaxo radiyallahu anhu mu ne guddi gi fukki waxtu ak ñaar si waxin nga nelaw fukki waxtu yi ak benn yàlla yee la nga yeewu teg sa tànk si suuf dara mettiwu la ma madame defaral ma ma ndékki sangu ñu defaral la ñu la war a defaral yëpp gaaw jaa ngi yàkkamti dem parce que am na patron bu lay xaar boo demee patron bi toog loola sa bureau huit heures ba heure bu ko soob ngay dero delluwaat si kër sa sañoo bañ yàlla ne la yow yow nelaw nga fukki waxtu ak benn benn waxtu bi jukki ma soor a dem maanaam jullil ma ñaari rakka wa muy ñaari rakki suba wala ñaari rakki fajar teg si ñaari rakki suba nga ne danga teyal nga ne da nga yàkkamti nga ne da nga nàngam te si diggante bi am na ku la gën fuuf gën la ragal yàlla gën la bëgg yàlla gën la topp yàlla yàlla teg ko loo xamante ni taxul tax na talul loolu muy julli googu yow loolu yëpp yàlla teggil la ko te defaloo yàlla dara nag dara dara wallaahi lu tax mu teggil la ko nga jóg julli googu nga ne doo ko def xam nga sànq maa ngi koy wax mm-hmm. bi ñu toogee di waxtaan laata émission bi di commencé mm-hmm. am ku bind si xale yi si Facebook bi mm-hmm. ma si profité ne ubbi nañ waree page wareefu mille 2021 la tudd ku ci bëgg a dugal laaj rek nga dugal ko ci insha allah ñu andi ko si daara bi wareefu Ramadan 2021 bu subaa dinañ génn affiche bi si tali bi ñëpp gis ko ak numéro beeg yëpp incha allah ku am laaj rek booy laaj nga dugal ko si mm. wareefu ramadan 2021 incha allah ñu andi ko si daara ji comme niñ ko leen tàmmale di leen ko defee mm. ndax ni doo ko tàmmal lu baax mm. ba mu miin ko doo ko bàyyi ndegam lu baax la moo tax nga tuddee sa émission bi émission bu mag bi la meilleure émission religieuse Wow. du mois de Ramadan au Sénégal mooy wareefu Ramadan. ah bon waaw dañ ciy waxtaanee diine. te day tegu si alquran. ak sunna. tegu si xam-xam. waxuñu xam nañu lépp. lu ñu xamul ñu yóbbu ko dem si kàggu yi muy bibliothèque bi càmbar ko fexe lépp nekk si alquran ak sunna bañ si génn wala waru boxam waru waxu borom xam-xam yi nga xamante ni du taxu ñépp man si jëriñu te bi mu tàmbalee ak léegi tey yaa ngi maa ngi gis Facebook live bi mu ngi yéeg. 600 mm-hmm. lañ tàmbalee 200 ñu ngi si 300 te balaa ñoo wàcc ba mooy tuuti. Mm-hmm, kay 10 000 lañ jëmale 30 000 ñëpp a ngi naan mën nañ émission bi. Mm-hmm. dafa am ko posté si Facebook bi sànq mu ne. toutes les personnes. qui jeûne sans prier qu'Allah accorde leur régime <laughs> mu ne ñii nga xamante ni dañuy woor képp kuy woor moom mën ngaa julli waaw parce que yii nga xamante ni mooy tax ñu valider sa julli yëpp daanaka moom ngay def pour mën a woor mhm. doon mu kallaf mhm. ànd ak sa xel mhm. ba pare wér kuy woor moom mën ngaa julli du dëgg léegi nag nga woor ba pare te doo julli mu ne ñi nga xamante ni dañuy woor ñëpp te duñ julli yàlla na yàlla nangu seen régime parce que dañuy régime <laughs> dëgg la Seyda dañuy régime wa am naa bi ne foofu laa lay joxe wa am naa bi ni'mati rabbika fa xaddis boobu xam nga ne la mm-hmm. koor gi la yàlla indil muy xéewal di teraanga di lépp mm-hmm. delloo njukkal bi nga war a delloo njukkal yàlla si koor gi mu la indil mooy di ko jox juróomi waxtoom dëgg la balaa daraa xew mm-hmm. waaye bëgg di woor doo julli ndax tey jii nii bâtiment bii nga xam ne moom mooy lislaam juróomi pays ñoo ko te dëgg la bu si jiitu boo seede ne yàlla kenn la yonent sallallahu alayhi yàlla moo ko yónni julli julli natt azaka boo ko mënee door a ñëw weeru koor door a ñëw waaye yow nga tëb ñetteel ba dem si ñeenteel ba wala tëb ñaareel ba dem si ñeenteel ba léegi kon xanaa tëb nga benn pied te yaakaar naa nag bâtiment bu ko juróomi pied waree taxawal sayda nga bàyyi benn ba bâtiment ba dina res Oustaz Assane waxati nga dëgg euh, xam naa duwul dara rek nga ne émission bu mag bi ndax ñi fi toog nii mu Oustaz Mor Thiam mii du wax dara loo xam ne dëppoowul ak li nga xam ne bu ñu delloo ci alquran fekk ko fa bu ñu delloo itam ci sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam fekk ko fa même bu fekkee ne sax am na dara lu ñu rëcc dinañ ko rekk rectifié waat demaat jëli ko ndax alkamalu lillahi macha allahu taala te loolu tamit ñu la ciy ndokkeel bu baax ci sa nangoo gëstu ci sa macha allahu taala mën a wàcc sa bopp ba nga xam ne lépp loo xam ne am na rek oustaz Mor Thiam dina ci taxaw jox ko fullaak fayda boo xam ne macha allahu taala ñëpp ko béggee ñëpp la ciy kontaan suñu téléphone yaa ngi nii. Mhm. di waaj a toj ñëpp namoon la namoon ñu namoon xam nga Assane li nga doon wax dañuy dellu si rek li ñuy wax al insirafu anil shawaghil xam nga duwul dara rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne. ni'mataani. Mhm. ñu ne ah bu ne mu ne fiihima kathirun min annaasi ñu ne ko ban la mu ne assihatu hmm. wal faraax ah. ustaas loolu yow laa koy jox nga firi ko ni'mataani maghbuunun ñu ne ah, mu ne ani naas kathirun min annaas sax la wax ni'mataani maghbuunun kathirun min annaas ñu ne la mu ne assihatu wal faraax allahu akbar waa tabaarakallah xam nga Seyda mhm. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu boroom daf ko jox lu mu joxul kenn. dëgg la mu bokk ci ay xusuusiyaam ay particularitéem ay jagle jagleem ay cëram. mooy yàlla may ko mu mën a ko wax. moo tax bokk na ci li muy wax ni uutiitu jawaamirul kalim kenn du moom wax ñaari baat. nga mën ci tabax sa dund. la ko wax. ñaari baat kese nga man ci tabax sa dund waaja ba mu ñëwee laaj ko nan laa mën def ngud jub mu ne qul amantu billahi summa staqim mustaqim mu jeex tàkk keneen ka ñëw mu jox ko sa xadis ba laa tax dab kenn du Seydou donc moom loolu la ko yàlla defal bàyyil xadis jàmbur laa tax dab dégg nga loolu la ko yàlla defal mhm. moo tax euh, boo bëggee noppalu mhm. ci dund tabax sa dund mhm. bëgg ko bëgg fi romb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doo dem sa dund du du du jekk sax <laughs> doo dem du jekk sax ndax ni ko yàlla defal mm-hmm. euh, dafa am benn alerte bu muy def mm-hmm. xam nga léeg nga am sa njaboot mm-hmm. muy daw nga ni ko moytul gaañu gaañoogul de mais da ngay bañ mu gaañu moo tax nga ni ko eh moytul gaañu hadis bi loolu la ñuy def daf ñuy wan ni moytu leen gaañu parce que léeg nga sa nga gis kenn di ko ñee gis kenn di ko ñëwee fekk ne yaa ko ëppale mais lii la yàlla deful nga gisul mu la koy wan nag mu ni yàlla may na la wér mais gisuloo ko yaa ngi xool borom milliard te moom ma ngay daaguwaale comprendre nga mu ne xéewal gi la yàlla defal te gisuloo ko war nga koo gis mu ne bu njëkk bi mooy wér gu yaram ji la yàlla defal xamuloo ni tëdd ci sa kawleel yeewee yeewu rek cëpp sa tànk dal di jóg fu du ne alhamdulillah loolu am na ñu ko xamante ni bi ay at a ngi ni amul. waaw yaramam nanguwul fudd. amoon na benn premier ministre bu nekkoon Israël ñaatal at la nekk naa la ah, comment sax moom. Ariel Sharon. waaw mu ngi fi ba léegi wala léegi. xaw ma ndax dem na wala demul mais ñaata at. la nekk ci kaw lal xoddaa nax bahu mundu aywa ah, ah. dégg nga eh, demoon na ba tamit Yasser Arafat yeggoon na ci moment boobu ñaata at mu nekk ci kaw lal mënul wàcc mm-hmm. yow ngay tëdd guddi rek yeewu wàcc jël sa kaasu ndox naan ko dugg sa toilette tuur ndox wérgu yaram googu la yàlla may nga ma naan kaasu ndox bi wérgu yaram gi la yàlla may nga dugg ci bis euh, wanag wi tuur ndox loolu xéewal la bu nga xam ne boo ko comparé ak borom milliards yi xamuloo loolu la yàlla defal loolu la yonent bi wax ne yaa ngi ko am de mais réer na la ndax wérgu yaram la beneen bi ci des mooy am jotu mën a def dara alfaraax am jotu mën a def dara tey jii tal maanaam tal loolu tal laa koy tuddee xam nga tey jii am na réew yu nga xamante ne bii bomb yaa ngay wàcc. ca réew ma waa réew ma talu ñoo def plateau. déedéet déedéet. mais ñun am nañu tal gi tal gi talu dugg sa oto talu dem seeti sa tante talu jël suukaru koor yóbbul kenn talu taxaw ci bopp koñ bi sax wàccee sa vitre jox benn nit benn sax tal googu la yonent bi ne yàlla defal na ko lu xéewal la mais gisuloo ko. te nee na yonent bi nee na ñu bëree bëree bari bëri gisuñu gisuñu boobu xéewal donc kon li li li mu ñu ci bëgg a wax mooy xéewal gi nañ ko delloo ci sante ko sunu borom benn mbokk dafa wax ni wér-gu-yaram xewal la bu yàlla defal jaam nee na ki feebar rek ko koy gis waaw bala nga koo xam rek nga fanaanoo feebar waaw guddi gi day yàgg trop wallaahi donc kon ñaari xéewal la am nañ ko mais gisuñu ko ndax danoo teg suñu bët ci leneen yonent bi nag daf nu ñaan bu nuy xool bu nu xool ki nekk ci suñu kaw nanuy xool ki nu féete suuf ki nu féete boo xoolee ki la ëppale alal dootuloo xool ki nga tane euh, looloo tax yonent bi bokk na ci lim nu jàngal mu ne soo gisee kenn yàlla teg ko lu mu la tegul santal yàlla ci teggi gi mu ko teggi ci sa jëmm ji te teg ko ci jëmmam ji alhamdulillahi alladi aafani mimma ibtalaaka bihi donc kon xéewal la wér gi xéewal la même boo amul wërsëg tal gi xéewal la même boo yorul dara euh, nañ ci sant sunu borom jërëjëf oustaz Mor xam nga moo tax rek woykat bi wax woy bi ma moom laay joxe asar mu ne isa kunta fii ni'matin hmm. ñu naa mu ne faraaha hmm. hmm. isa kunta fii ni'matin faraaha ñu ne lu tax mu ne fa inna al aazi tuzilul niama nee na boo nekkee ci xéewal nee na dee ko bay bayal sàmm ko de mooy suñu jàmm ji ñu am suñu xëy nuyoo xëy sa doom yële fale dawal otoom ànd ak boroom këram indi la dogu daal di jël pañe koor yi macha allah ni ko xale yi di ko defee rek sukaru koor bi nga xam ne léeg-léeg mu xaw a ëpp waaye nag ëpp naa bàyyi ndax man ci sama waaraate toujours dama leen di wax sukkaru koor pañeen ndogu yi <laughs> dafa neex ci xol te xam nga xadisu euh, Aïcha bi laay wax Aïsatu nga boobu xadis dong la mokkal tahaadu tahaabu mook yaayam maam awasi xam nga démb dama toog ba si yàgg sama benn doom bu ñuy wax màgget yaayam mooy ki ñuy fekki weli mu mustarchid bu mag boobu nga xam ne ndeysaan saa yu xëyee dina posté juróomi photo sëñ Moustapha ma ne ko xam naa ne cofeel gi ñu bokk maak moom kooku moo tax man mu bëgg ma macha allah ba euh, xam nga oustaz nit nga koy defal conférence at mu jot ngay dem di ko fekk mu ne ah danga ma defal si mbootaay bi ñoo dindi lii ñoo la ko jox ñu dem loolu amul mu dindi jox la mais dem nga mais nga toog ba at mi dellu si loolu amul kenn deful la mu la doon jox ak cadeau ya mu la doon jox mu jël ko yónnee waat la ko ne ndax dañ koo waroon a def mais comme du sama sama sago du sa sago xaaral ma yónnee waat la taraanga jooju. jël na jukko yàlla. kooku xam nga kii. jukko muy sala bu bu bu weli ngara doomam màgge démb. dafa am yoo xam ne oustaz bette la yu neex yoo xam ne xam nga koor gi commencé gul sax yow ngay ngay xalaat nit madame fay yàlla ko yàlla fay may ko njaboot gu barkeel waaye moo tax mu ne isa kunta fi ni'matin far'aha xam nga tey am na benn bës bu ñu fi yeewoo 8 mars bi passé. Mhm. xam nga tuñu yàlla. wallaay Sénégal man image yooyu bi ma koy xool keroog. génnuma si tele bi daf ma jox comme jour bi ma xëyee rek 11 septembre ma xëy rek romb jóge New York di dem man euh, jóge Manhattan di dem euh, Philadelphie ma yooyu image ma doon gis sama àdduna yëpp jaxasoo ma jaaxle. ci senegal lii lii mooy lan kon nag bu ñu demee ba nga xam ne yàlla muri na ko feebar bi ñëw yàlla di ñu dimbali di ñu dimbali tey muy wàcc ñu bokk si ñu ko gën a wàcc la ci monde bi war góor góorlu nag ba li kii wax ne faraha ñu jël ko nag sàmm ko ba duñu rëcc mu ne fa innal aasi tuzilu niama Oustaz hmm. Assane xam nga loolu ma di la jox rek ci euh, li ñuy wax naan euh, alfarq bayna alhamdi wa shukri hmm. teqali boobu il faut que nit ñi xàmmee ko mm-hmm. ndax weeru koor ñu si nekkee oustaz mm-hmm. tey suñu xol yi dafa war a neex am na ñoo xam ne doo leen gisee ñu ngay triste tristelu ñu ngay yërëmtalu ah gi ñu ngi koy jàmbat mel ni da lu metti lu ñëw ci ñoom or que li nga xam ne tax na ñu tëj safara yi mm-hmm. oustaz nga ne déet ñu jël wa sudi fati soyapin ñu daal di jël tënk euh, euh, nuñ koy geng geng jëng jëng jëng euh, macha allahu taala li li ministre bi di tere li wax mënoote mënoote mënoote li bi di tere sëriñu daara yi jëng eh, waa jëng ñu jëng soyaatiin yi yëpp nag soyaatiin yi xam nga boobu ba pare nag ubbi buntu àjjana yi nga xam ne suñu néew yi nga xam ni ña nga woon ca leneen yëpp yàlla tey day jël ñëpp fii xel leen jox leen xéewalu àdduna ñu nekk raw rawdatun min riyaadil janna ku ci génn àdduna nii tamit yàlla ubbi la dangay dem dem àjjana directement doo jàdd fenn usaa xéewal yooyu suñ ko suñ ko yàlla mayee ñu fekkee ko ca tey la suba xamuñu liy xew lan moo la war ci bés boobu tey nii balaa suba ak yéene bi nga ci war a am ak mbaax mbaax yi nga xam ne Euh, jeeg ji nekk ci biir kër gi di sëy fas yeneen ndogu bi baax xëdd bi neex macha allah taala xam nga sama taatu bool boobu ma tegoon ci ànd ba te te xale yu ginnaawu ma xam nga moo tax xam naa sax moo gën a sama yaram bi. mënta ñàkk <laughs> Seyda dafa am suñu. Salmon dama xam nga démb dañuy reer ma xaw a sonn noonu comme ceebu jënu jagale nag ma jël taatu bool bi ne jànq bi tegal ko si ànd bi te muural ma ko pourtant muur naa ko. damay bañ sa collier bi nga nga doo ko yóbbaale rek léegi nag. ma ma yeewu ci fajar gi rek gis ànd bi noonu ma ne soo wóor na ma ne ku fi jaar ma wàcc ca waañ ba fekk ñoom ñu daal di defaru ba mu daal boobu xam naa nag loolu bokk na si li gën a sama yaram sa asat jërëjëf Seyda jërëjëf jërëjëf jërëjëf dafa am suñu benn maam bu baax bu yiw bu sell bu tudd Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu xayal bu weer wi daan teru dafa am benn bayt bu mu ko bindaloon mhm. yaa xayra dayfin ata bil bichri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi macha allah yaa xayra dayfin yow gan gi gën a màgg si gan yi gën gi gën yiw si gan yi gan gi gën baax si gan yi Cheikh Ahmad Bamba mooy wax de radiallahu anhu ata andil nañu moom gan googu ñu weeru koor wi ñu ne ko lan mu ne bi bichri wal madadi andil nañu mbégte indil nañu xéewal indil nañu teraanga boo xamante ni amul app Seyda lu tax mu ne mbégte mbégte waaw mbégte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne man saama ramadana imanan waxtisaaban gufira lahu ma taqaddama min zanbihi jar naa daw ba dee min zanbihi waa Seyda lii lan moo ko gën a rëy amul amul laayu weer woo xamante ni boo ko wooree ba mu jeex jublu si sàkku yool ak gëm yàlla loo mën a def si rëcc-rëcc si li jiitu yàlla jéggal na la ko loolu mbégte mënu ko gën a rëy kon weer wi dafa war a nekk weeru mbégte weereen war a nekk itam weeru sant yàlla moo tax mu di ko wax ahlan wa sahlan wa tarxiban bilaa adadi gis nga oustaz gis nga nitu yàlla du lu garaaw la dëgg la mu ne bil bishri moo tax koo gis mu woor mhm. te ne njaboot la ci njaboot yooyu mhm. nga gis ko xar kanamam di di ñàng mhm. muy naqari deret ci bëccëgu weeru koor xamagul gan gi lan la ko indil valeur gan gi la xamagul parce que bisr mooy mbégte moo xamante ni ku jàkkaarloog yow mu feeñ looloo tax euh, sëñ sëñ sëñ Basiiru Mbàkke bi nga xamante ni mooy wéy juru xalifa bu tedd bi fi nekk nii ñu doon ko wooyee borom mbég mi borom mbég mi parce que kanam gi dafa souriant woon. Mhm. comme ni Serigne Mountakha doom gi doon na ko macha allah bichir mooy loo xamante ni buñ la gisee ni rek mu affiche ci sa kanam. nag mooy lu nga xamante ni day ñëw te mënoo ko manifester mënoo ko wane. moom la ñu tudde euh, euh, macha allah euh, macha allah borom borom borom borom ree gi nga xamante ni bu reewee rek. Mhm. lépp dal. parce que moom it day sànn sama rakk ja Fatou Sy Mansour Diop Mbour mu ngi naan ma. Oustaz Mor Thiam borom ree ju neex bi moom it de <laughs> boobu boobu la lay kii du la tudd mu ko te neewul Oustaz Mor Thiam borom ree ju neex mu ne ko ahlan wa sahlan wa tarxiban mhm. bila bila adadi bila ad amul amul déedéet amul dayo ñëwal soyez le bienvenu xam nga ñu bëri dañu lay gan di yàkkam ci gan gi ñibbi ñu ngi lay ndokkeel ndokkeel ba nga xamante ni amul ab ndax li nga ñu andil mooy li ma waxoon sànq ñun ñuy joxe ndekki añ reer sax yàkkamti wuñu mu ñibbi déedéet ndax li mu ñu andil si teranga nga wax léegi alfarq bayna shukr wal hamd xam nga nit dina nekk si diine lislaam di jàpp di julli di woor yaa ngi may dégg ba pare am jikkoy ku weddi yàlla naouzubillah waaw la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la wallahi allah subhanahu wa taala yaqulu fi tilka al aya bi kufri an ni'ma maanaam suñu borom subhanahu wa taala li muy junj si aaya boobu bëgg ñu ko jàngal xamal ñu ko mooy di xéewal ga nga xam ne yàlla defal na la ko yàlla may la wér sa wér ak kàttan gi nga am ak wér gi defoo ko si lenn lu neex borom bi subhanahu wa kon yaa ngi di xéewalu wér gi la yàlla defal yàlla ma ne la gan sa weccat wi nga yorandi si tuut te ku ko ëppale fuuf mu ngi tëdd si sëg yi nga ne doo si def ci jaami yàlla yi te yàlla rek tax yow yaa ngi weddi yàlla si xéewalu man ngan gi mu la defal allahu yàlla may la xam-xam def mooy na la xam nga ne sama xam-xam bi day lenn rek laa siy def mooy toog yor sama télécommande di xaar ku jamac rek ma dal sa kaw te doo si baaxe nit ñi te yàlla rekk tax yaa ngi weddi yàlla si xéewal gi mu la defal si xam-xam docteur Lo docteur Ahmed Lo dina koy wax waaw ngeen di moytu bokk ci ñi nga xam ne dañuy toog rek di xaar rek ku def erreur rek nga kii ko doo avancé mukk yow pour yokki sa xam-xam ci leneen tout le temps foo toll rek yaa ngi dellu ci kàddu yi. yow bul wax dama mës a dégg si El Hadj Assane kii El Hadj Sakho. Mm. Mm. waaw radiyallahu taala mm. mu wax ni sang piir yal yàlla yokk leeram. amiin amiin mu wax ni sang pire. mooy lal raweel. Mm-hmm. lal raweel. Mm-hmm. toog ci. Mm-hmm. di déglu koo raw. ba noppi naan escape. jërëjëf nga ñëwaat moo ñu dal ak suñu kilifa diine nga ñëwaat si li nga doon wax léegi mm-hmm. yàlla may la xel mu rafet mm-hmm. nga gis sa njaboot wala kenn si njaboot wala kenn koo dëkkal muy dem mu wóor na la si kàmb ji la jëm te waxoo ko moytul gaañu mm-hmm. te xam nga fi mu jëm yow nga ne tekk ba mu ne sërëx si kàmb yi nga naan ñaw yaa ngi weddi yàlla si xel mu rafet mi mu la defal te defalu ko kooku ba mun nar a tàbbi si kàmb gi kon tey jii nii dafa am loo xamante nii jullit bi bu ko nekkee ba pare gëm yàlla gëm yonent sallallahu alayhi di julli di woor di def lépp dafa am loo xamante nii xéewal goo xam ne li mu santee yàlla mm-hmm. mooy wér giree yaram nga si jaamu yàlla mm-hmm. mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na nga fàggu juróom laata juróom di ñëw yaqtanim xamsan qabla xamsin mm-hmm. yaa ngi dégg occasionné wul ci juróom balaa juróom sixatik qabla maradik qabla maradik wallahi bu la yàlla mayee wér mhm. profitool si mhm. sa wér gii la yàlla joxandi ndax xamoo luy ñëw ëllëg wallahi wa shababik qabla haramik mhm. bu la yàlla defee ndaw ndaw loo gis mag lay doon de man bu ma gisee ñi am soixante ans soixante dix ans damay tiit fa laa jëm bu ma yàlla mayee gudd fa euh, oustaz doguma la foofu xam nga li ci gën a doy waar sax mooy ñi nga xam ne il y a deux ans trois ans occasion mayoon na leen pour ñu dem màkk mu yomb lool ci ñoom muy umra bi muy muy muy aj bi nga ne ah xale damay xaar ba déwén damay xoolal léegi mbir mi ni mu jafee tey ñëpp a ngi indi seen xaalis ay centaine de million ngi nelaw nii ci suñu compte yi mais munuñoo dem moo tax loolu nga wax ne profito ci occasion ci lii balaa lee kay mu ngoog yàlla may la wér mhm. may la wéru poos may la wéru yaram waaw nga naan damay xaar damay xaar wala sax bett la wala lii di ñëw ñëw waaw ñu ne ko amul nangami at doo dem mhm. boobaa yàlla dogal na waaye itam am nga si part de bu mag a mag a mag kon yàlla bu ñu jofee xéewal mhm. mooy li ñu wax léegi la in shakartum la na ko yàlla bu ngeen santee rek man ma dolli leen yàlla def la jeune nga naan damay xaar ba nekk pa nangam wax naa ko sànq man maa chaque jour ma ko gisee ñu am soixante-dix dama naan ay man fu ma jëm waaye am ñam <laughs> yaa léegi waaw waaw man man nag tey Oustaz Assane seetaan naa benn nit ci télé hmm. ma koy xool ba si yàgg ma ne man nag il faut ma bind demande de retraite bala maa egg foofu parce que ni ma ko doon gisee kanam gi ak ni ma ko gisee ah, tey ma ne màgget daal dëgg na wa am man man yaayus كما لا حول لا بالك يسامي ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون فلا يعقلون sa suuratu Yaasin moo tax il faut que itam léeg-léeg place bi itam ñu ciy ñuy pousse nag di ci jox xale yi ila ardalil umur li kay laa ya'lam min ba'di ilmin ah. shay'an moo tax il faut ñu former xale yi formation yu dëgër yoo xam ne am na fooy toll dangaa war a dellu ginnaaw nag jël xale yi teg leen ci kanam ñu ñu def nga dem toogi dogguma la démb damay waxtaan ak sama rak waaw parce que vraiment am na loo xam ne daal mag moom dama daan ànd ak diw ñu dem di def conférence na kenn du ko may dem di def conférence mhm. ma ne ko daf may woo rek ne ma conférence bi suba ak gannaaw suba ak nangam sangam fii ak fii ak fii la mhm. thème bi lii la maay mhm. préparé ba fajar xëdda tuuti mu woo ma ñu daje fi ñuy daje ñu ànd si conférence ba dem bu ñu paree mu yëkkati cinq mille jox ma mu tëb dama wëy 5000 rek ma ne ko waaw maa doon jàng <laughs> maa nekkoon di def formation mhm. maa bëggoon xam donte la mën nga jàng ba yëgg niveau bi mais dafa am loo xamante ni soo ko pratiqué wul bu ëllëgee doo ko man mhm. mu ne ma te jaraloon naka ma nekk ndaw du yàkkamti déedéet ndaw du yàkkamti dangay def tenkam tenkam tenkam tenkam sax tokka tokka gën yuréet moo gën yuréet waaw moo tax yàlla bu waxee wa mun noo am miru nag ko a xalq ku ne war nga si bàyyi xel mooy li nga wax afala yanqiluun ah. baax na a afala taqiluun baax na waaw selon riwaaye warsu wala xafs ah, mais dañ ne ñu taqiluun ko rek waaw xam nga man tawtanis moo ma neex tey baax na waaw <laughs> nasal al quran ala sab'ati ahruf <laughs> uh-huh. yaa ngi dégg uh-huh. tey jii nii léegi nag nga dem yàlla nee na ku ma guddal sa fan rek mm-hmm. am na lu lay yoon mm-hmm. te dañ mu ñuy dàq dañuy jàpp ñun ñëpp xam nga lan la oustaz télé télé ñuy dàq te ñun ñëpp lay jàpp ëllëg tôt ou yàlla na yeex kay la ñuy wax mais tey jii nii bu la yàlla defalee xéewal nga nekk ndaw nekk nangam wér am kattan am nangam kon yow li ngay sante yàlla si li mu la defal mooy ngay jooxe ay santaaneem sa kem kattan mooy fattaqullaha mastata'tum bi ñu doon waxtaanee sànq mm-hmm. waaye yàlla jox la kattan mm-hmm. ngay doon ndaw doon jeune boo jullee suba doo julli tisbaar mhm. boo julli tisbaar doo julli tàkkusaan boo jullee ta yow daal da nga koy def comme ni nga ko sentir te affaire bi nekk ay textes yoo xamante da nga ko war a appliquer noir sur blanc mhm. yàlla jox la xel Seyda ñaata nit ñoo àndoon ak seen xel ba jëmmi jamono ñëw nattu dëb leen àndatuñoo seen xel mhm. ñaata nit ñoo wéroon xëy wératuñu ñaata nit ñoo mënoon xëy mënatuñu moo tax yàlla boo koy sant si xéewalam yooyu da ngay def kem kàttanam si ay digleem te bàyyi ay tereem fi ma lay joxe mooy wala in kafartum yàlla nee na bu fekkente ne xéewal gi ma leen defal moo xam wér la moo xam alal la moo xam man-man la jaamu leen ma si yàlla nee na inna azabi la shadid samay duma tar na te dana dal seen kaw kon ashukuru mooy gërëm sant yàlla loolu day nekk si li nga xamante nii moom mooy li nga xamante nii moom mooy xéewal wërsëg ak weer gi nga xamante ni yàlla may na la ko xamdu bi nag mooy li nga xamante ni borom bi subhanahu wa taala jox na la ko nga partagé ko ak ñi nga xam ne ñoom na la yàlla booleel si penc mi te nga xamante ni yitte woon nañ ko dañ ne boo waree naan kopp yàlla jox la paan xamal ne du pour yow kese xam nga Seyda ma def benn taalix ci bayt ida kunta fi niamatin faraaha fa inna al maasi tuzilu niam mm-hmm. euh, lu la yàlla jox lu nekk. Mhm. lu la yàlla jox lu nekk. Mhm. da ko war a téye. Mhm. Hmm? war a peeg. waaw da nga ko bu baax. parce que kenn joxula ko ku la ku dul suñu borom. moo tax da war a sauvegarder sàmm ko. Seydina Ali muy wax bayti bi dafa ne wa xaafid alayha bi taqwal ilah. wa xaafid alayha bi taqwal ilah. fa inna al niqam waaw allah cay yàlla afiri zan bi waqaabil taw mu ngo shadidil iqab zi taw la wallaahi donc kon euh, euh, lu la yàlla jox rek sàmm ko sàmm ko bi mooy jox ko cër moom borom bi subhanahu bi la ko jox nga nga bàyyi ko xel beneen bi ma doon taaliq ci ci ci ci alhamdu wa shukru gis nga alhamdulillah cant gu màgg la mais ñun dañ ko woyefal mhm. dañ dañ ko woyefal cant mais cant gu màgg la nag yàlla def ni fa xulil hamdulillah fa xulil hamdulillah eh waxal alhamdulillah mais ñun nan lañ koy waxe ngay gis ñu jox la benn kaasu ataaya rek daal di jël naan daal di teg kaas bi ne alhamdulillah pare nga ci boobu doy mais bi li yàlla jët sonn xam nga Seydaa léegi mu ngi tudd xëddam bu nga xamante ni bi da ko doon xaar te gisu ko mais lan la yàlla dajale ba xëdd bi nekk ci bool bi noonu mu teg ko ci kaw ànd bi boo xoolee ca annaa sabab nal maa sabban ja ma shaqaqna al arda shaqan allahu akbar même sa foofu sol la ilaha illallah boo xoolee bala nga ko composé rek di nga dem marché du poisson au marché au poisson la ñuy wax di nga fa jógee di nga dem marché caaro yi ca légume ba wala kastoor di nga fa jógee dem ci grossiste bi ca ceeb ak diwlin ak tamaate di nga jógee ubbi robinet bi ca seen ndox dajale loolu yëpp ak thème bi ak formation bi nga xam ne def nga ko pour mun a def loolu. léegi nag parce que ndugum yëpp mun naa daje. te formation amul. boo ko toggee kenn du ko baax léegi nag ba mu paree. bañ ko toggee ba mu jaar yoon. nga jël ko. Mhm. tibb ko tibb. Mhm. ak def ci gémmiñ ak jàllale. Mhm. ak tibb léeg-léeg doo ko mën. Ah, kattanu yàlla googu léeg-léeg loxo bañ ba du mën a jëm ci gémmiñ nga gis koo xam ne dañ koy defar rééducation pour que loxoom bi mën a téye. wala fourchette bi boo demee hôpital fii fi ñu koy defee paralysé jàpp na ba nga xam ne loxo bi bu jëlee kudd gi day jaar nii wala mu jaar allahu alladi xalaqakum min daaf mhm. summa jaala min ba'di daafin quwwa summa jaala min ba'di daafin quwwa min ba'di quwwatin daafan wa shayba yaxluqu ma alors léegi nag kattan googu yàlla def noonu ba nga mën a jël kaas bi pour mën naan ba pare jàllale ko mu jàll jàllale ko mu jàll uh-huh. rek nga daal di pare rek daal di alhamdulilah alhamdulilah suñu borom ne yomb na uh-huh. alhamdulilah foofu xul alhamdulilah mooy defal a shukr te mooy i'malu ala daawuda shukran maanaam xéewal gi nga jël nan ñaq bi tuuru ci keneen mën a jotaat ci xéewal gu ni mel euh, oustaz sax gis nga alhamdulilah xam nga dañu ne alhamdulilah alhamdu yakunu lil lisaan làmmiñ rek moo koy wax waaye nag ak xol xam nga làmmiñ mooy wax ak xol mm-hmm. alhamdulilah mm-hmm. sant yàlla mm-hmm. waaye nag bu fekkee ne shukr la mu ne nag walakin sukur qad yaqau bil jawaarihi mu ngoog loolu la loolu doon expliqué léegi bu dee ne bu dee ne cant la cant moom jëmm amalu ala daawuda nga xool li tax yàlla xëy suba wax moo tax li ñuy wax naan euh, il fok ñu boole ci li ñuy wax uluwul himmati xam nga dañ ne bil bil bil himma bil himmati taalu al kawaayib mhm. ñu ne kullun muyassarun ni ma xuliqa lahu mm-hmm. waaye uluwul himmati mm-hmm. daf ci bokk Isa Hasan mm-hmm. xam nga dafa am euh, saxaabi boo xam ne euh, dafa ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma jumulee mooy rabiatu ibnu kaab xam nga doon na nekk ak bi lu bëri par guddi sallallahu alayhi wa sallam nee na dama doon fanaan ak yonent bi sallallahu alayhi wa moom rabia mu soxla xam nga yonent bi lu mu soxla woon rek ñoom ñëpp ay daw nee na mu soxla ndox ma indi ko ñu jàpp ba pare moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallama daal di kontaan ci moom xam nga oustaz xale yi dama leen di wax dee leen jaamu seeni waajur ak seeni jigéen ñi jaamu seen borom kër yi xam nga te oustaz ma soxla ndox jóg nga ne ma nijaay wala alaaji wala kaw foo jëm man dama bëgg naan nga ne ma ëpp naa def daal daw jël jël jël karaaf teg ko ci palaat teg ci kaas jël glace toj indi tegal la xellil la nga naan ma taxawaat sukk ci suuf di xaar nga naat beneen kaas bi est-ce que yem na ak ki nga xam ne da nga ko ne may ma ndox rek mu dem jël pot bu mu jëkk a jot rek dem te robinet ba xelli rek indi ne la ko cay wala mu tegal la ko ne ndox mi nga doon laaj ngi noonu ne la wërëñ woon la ginnaaw du benn sa nga gis sa waajur jëm ci wanag bi nga xam ne amul ndox nga daw ne ko yaay papa ndox mi amul nga daw ne ko xaaral ma luggalal la ko daw tàngal tuuti ñëw dugg ci douche bi tegal ko tegal ko wala nga xam heure bi muy jóg bu jotee nga ne ko koŋ-koŋ yaay ndox bu tàng baa ngi nii 5 bi matin jot na bala balaa balaa heure xëdd bi ak préparer ko plateau xëddam tegal ko def ci yoo xam ne wóor na la ne lii moom du poosam du mm-hmm. sa poos jëkkër baax xeetu baax baax yooyu Kaab mii dafa defal yonent bi loo xam ne Rabiatu ibnu Kaab yonent bi kontaan na ci defin gi mu ko defal yonent bi ne ko looy laaj looy ñaan mu ne ko fa qaala lii sal laajal laajal ma wax suñu borom mu defal la ko ka rabia ne ko man daal li ma bëgg mooy mooy ma ànd ak yow rek ba àjjana ma ne ko moo ne moom muus na de xam nga man sunu man dama ko naan waaw 4x4 bu bees ak kilomètre milliards yi xew ci senegal jet privé yi ci yooyu laay laaj mais moom dafa ne yonante bi ànd ak yow rek ba àjjana yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah ak lan mu ne ko man daal loolu rek laa soxla yonent bi ne ko kon dimbali ma mu ne yonent bi nu ma lay dimbalee yonent bi ne ko fa inni ala nafsika bi kasrati sujud ma sha Allah dimbalee ma yow tamit ci bëri looy sujootal yàlla gis nga mu ne yonent bi dama bëgg di ànd ak yow ba àjjana yonent bi na ko baax la de waaye yow tamit dimbalee ma mu ne ko lu ma lay dimbalee mu ne ko deel bëri looy sujjuut guddi moom sallallahu alayhi wa sallam macha allah xam nga loolu daf ñu may delloo rek si benn xadis bi mhm. sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mhm. doon joxe gars yi caabi ajjana si waxin di mhm. gars yi bëgg dugg ajjana mun leen yomb na yombul afsu salaama fexe leen ba jàmm ne wesaaroo seen biir mooy li nga wax du taxabu mm-hmm. tahaddu buñ ko waxee du ñu xippoos rek mm-hmm. Seyda dina toog xam ne Assane mii li muy wax ni wala li muy def ni wala li muy jëf ni fu mu ko jëme baaxul mm-hmm. mu téye sama mbuba fëgg ma ma gestu mu ne ma toogal fa nga jëm baaxul am na lu ma jox li ma jox mooy lan ndimbal la nga xamante ne tax na tàbbiwu ma si musiba kon hadiya la bu ma xeet oustaz Mor gis na ma may julli nii may jullee du noonu te xam ne maa ngi sànq julli gi mu fëgg mu ma gëstu mu ne ma du nii nii dañ koy defe comme na Xasan ak Useyn radiallahu anhuma defoon góor ga doon jàpp te doon juum mm-hmm. Mm-hmm. ku nekk ñëw jàpp ne ko maax kii ku dàq jàpp mu leen yéen man man mii maa manul mm-hmm. udu ila sabili rabbika bil hikmati wal ma al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan du dëgg kon tey jii nii lii nga wax afsu salaama andi jàmm wa at amu taama di dimbali nit ñi te yàlla rekk tax di joxe lekk joxe lekk joxe ñam te yàlla rekk tax ndax dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la sus nag guddi yi ñu toll ittaqu naara walaw bi shiqi tamra sallallahu alayhi wasallam nee na mooy tëndaku leen safara fegal leen seen bopp safara soriyel leen seen bopp safara ñu ne ko si nakk si waxit mu ne donte la da ngeen jël benn xaaju tàndarma saraxe ko allahu waa léegi kii jël keesu tàndarma nag waaw te tànn keesu kii jël conteneur u tàndarma kii jël tonu tàndarma waxin la mm-hmm. noonu la dagane si kii joxe ay nag kii joxe ay xar kii joxe ceeb kii joxe diwlin mm-hmm. ak amu taama rek la wax mm-hmm. yaa ngi dëgg teg si lan wa sallu bil layli wan naasu niyaamun niyaamun mooy li nga wax léegi dee leen jël seen jëy di ko rëpp si suuf di sujootal yàlla di julli jamono ba nga xamante ne nii gaa yaa ngi nelaw kaanu qalilan min al layli maa yahjaun wa bil asxaari hum astaghfirullah waaye Oussa Assane gis nga kii hmm. ku ko topp hmm. ak écran bi hmm. doo bokk si ñuy julli guddi kii moom kaa yi ku leen di top sa nawaafil yi dina wàññi. léegi nag boo boo bàyyee lii teg ko si suuf. waaw di ifsha salaam wa seere jàmm. Mm-hmm. it amut taam di joxe ñam. Mm-hmm. di julli naafila mm-hmm. guddi. yàlla nee na ñu néew ñoo ko doon def. qalilum kaanu qalilan min al-layli maa yahjaun wa bil ashaari hum yastaghfiruun. nee na xam nga lu si topp. tadxulul jannata bi salaam. macha allah xam nga. dugg àjjana si jàmm ak salaam. xam nga xam ñett yi nga wax nii. est ce que xam nga bokkul ci jafe. kon compliqué wul. non non non non non. oustaz tax gars yi kon affaire bi dafa mel dafa compliqué gars yi affaire bi. yonent bi du ñu digal dara lu compliqué. lu metti déedéet. ah ba su nekk nga wax ko parce que rahmatul muhdaa la. rahmatul muhdaa la yàlla du ko indi mu nuy jox lu yomb prêt à consommer sans fatiguer. xoolal romb oustaz Assane salaamaaleykum. Seyda Fatou Bintou salaamaaleykum Fatou Bintou romb leen salaamaaleykum loolu lu si metti dara. mais Oustaz xam nga lu ma jaaxal waa Ndakaaru xamuñu ku leen romb nuyu leen te xamuñu la. Euh, duñ la fay. déedéet cest dafa am lu nga xam ni. mooy mooy li ma wax ni seytaane moo ciy dugg. Mhm. yaa ngi du yaidukumul faqr. Mhm. seytaan moo naan la. Mhm. ñii doo seen nawle doo seen moroom jaruñu ko nangam sàngam xam nga nit ñi dafa am yu nga xamante ne bii seen minimum. dafa tuuti dafa maanaam dafa yomb. ci misaal nit ñi ñu la doon xaar. nga am tuuti retard. waaw dafa am lu jekk. ah salaamaaleykum baal leen ma de dama am tuuti retard rek mais nangam gis nga salaamaaleykum baal leen ma boobu. boo xamoon li bombe bi nga désamorcé. loolu tax yonent bi jox ñu af su salaama. sallallahu alayhi wa sallam. ma ñëw ci deuxième bi waxtu wi jéem nee na ñu teg euh, suñu baram foofu nee ko neel bi tant que gisuma mu defal ma écritelu xalifa mbergaan ci lim ma solal Euh, waxtu wi dama koy continuer rek <laughs> léegi nag biyee yaa ngi may dégg booye boo nga def loolu wala fii laay toog ndax rawatina ndax tey yaayam macha allah Adja Ndeye Dieng mi nga xam ne macha allah taala Mati Dieng quartier moo ma ko yekkaloon mu tàmbaleek man nii te xam naa ne itam nii lay continuer man rek ba koor gi jeex sas yow tamit euh, du ñu def rek bu budul sant ñëpp gërëm ñëpp mhm. tey moom dañu ne sax thème bi tey gis nga ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu dañu doon ubbee rek Euh, ci macha allah ci ndokkelante ci bégalante ci nuyonte ci ziarante ci euh, waaj na nag ndax ci koor gi tam am na ay programme yoo xam ne dinañ ci dem ci ay seri conférence ak ay salaatu tasbihat yoo xam ne incha allahu taala. incha allah le premier bu waaw dinañ ci dem dinañ ci ñëw. ci semaine bii di ñëw dinañu dem itam macha allahu taala ci teraanga yi nga xam ne macha allahu taala euh, mooy sukkaru koor bi nga xam ne GFM moo ko joxe.

ak ay vingt cinq mille ay enveloppe bu vingt cinq mille yoo xam ne loolu foofu lañ ñu tënk dinañ ko joxe suba incha allahu taala su fukki waxtu jotee rek toog leen ci télé bi xaar ñu dinañu nekk ak yéen incha allahu taala bu mooy heure bu baax bi ndax émission bi mooy émission bu mag bi nga xam ne macha allahu taala fii la ñuy gàggantikoo ci daara ji nuyu nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di balu ñëpp àq di leen baal àq di jox oustaz Mor mu tàggatoo wax itam yow tamit sa sañse bu rafet bi ku la ko sañseel macha allahu taala tey moom kaaw laa doon ñaanal comme kaaw nekkut fi yàlla na ko yàlla yërëm xam naa rek ma ma jox ko xale yow ñu wàññi ko kon <laughs> waaw Seyda tabarakallah macha allah di nuyu suñu bokk ci Jolof mm-hmm. Euh, ñoom joor ñoom Oustaz yëpp ñu nuyu leen ziar leen. nuyu suñu sopp yi ci Gàmbi tabarakalla ziar leen nuyu suñu dëkkandoo yi nekk Yaraax yëpp ziar leen. di leen wax ni ñu waajal salaat tas bi incha allah le premier mai lay nekk bu soobee yàlla. ci fi mu daan nekk rek lay nekk yàlla na tey léegi yaatu na. ay na macha allah mais aussi di sant nag euh, suñu euh, secretaire sous-préfet bu Grand ay mhm. Aïcha ñu ngi koy nuyu di ko ziar. Mhm. magam nee na yande yande ndaw. nee na waaw sa soppe la mu ngi lay nuyu bu baax Adja Marème Ndiaye tamit mu ngi lay nuyu bu baax tabarakallah ak soppe yëpp tabarakallah di baalu ñëpp ak mhm. di ñaan yàlla yàlla may nu nu koor kooru jàmm mhm. yàlla may nu ay xéewal mhm. eh, dafa ñu sutura incha allah eh, li may tàmbali woon moom lay mujjee mooy salaat tasbih bi incha allah ñu ngi koy fàttali le premier mai ci yaraax bu soobee yàlla mooy bis bu baax jërëjëf Oustaz Assane itam xam ngeen ne bokk na itam ci weeru koor itam li ci yàlla eh, yonent bi wax ne ku ko def dafa mel ni aj la muy umra umra bi bu umra mënulee tamit lu mel ni ziaru fees bi nga xam ne waa Travel ñoom macha allah taala suñu agence bu mag boobu nga xam ne ñu ngi ci mm. ndax ñoom ci kër gi la ñu bokk moo tax il faut que itam ñu leen di jàllale di di première dame xam naa dafa demoon vacances bàyyi ma fi waaye waaye ma ma maa ngi koy ziyaare ak borom këram euh, ñu jox la nga tàggoo sa san amoon bëgg ànd ak yow ak mm-hmm. oustaz Mar comme ni nga ko waxee ñi bëgg def umra rek ak mm-hmm. euh, ziar fees ñu waajal ko ak Toural Travel agence bu mag boobu mm-hmm. nga xamante ni fa tabarakallahu ku am ku suñu jëmm ju oyof ji fa tabarakallahu la oustaz la ñoom fa tabarakallahu boo demee rek da nga def umra bu neex bu mucc ayib yàlla yàlla may ñi ko bëgg yëpp yàlla na defal leen ko te mottali leen ko bu ñu ko defee itam suñu borom subhanahu wa taala nangul leen ko si barke weeru koor bi nga xamante ni fa tabarakallahu moom la ñu dugg ziar bu baax ñi ñu doon topp ñëpp si facebook live bi ak youtube bi wax leen ne ëllëg incha allahu taala Euh, page wareefu Ramadan 2021 bi dana active bu soobee yàlla ku si dugal sa tontu rek incha allah comme niñ ko sa laaj ñu andi ko si daara ji càmbar ko lépp nag dañ koy teg si alquran ak sunna sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ziar bu baax maam Cheikh Thioy mooy suñu tailleur moo fi jaar 78 la 467 81 72 78 467 81 72 mu nga fële. si ah, yow fàttali nga ma man ki ma ñëwal mooy Ablaye Lo. Lo Ablaye Lo 373 373 72 85. macha allah mais Seyda daf ñu nax ndax moom dafa ñëw seddoo suñuy couleur jël sa euh, euh, xaw ma jaune la xaw ma. jaune or bi jël sama mauve bi sa mauve dugal si biir macha allah mu ngi noonu Seyda kii nag Khalifa Mbergane si boppam yaayam. waaw ñu ngi koy yaayam moom Khalifa day ñëw. suñu yaayam day jël si. yóbbu ko ne ko ñawalal ma sama xarit bi xam nga lii oustaz ñii kenn mënu leen a fay bu ko defee asan waaw ga nga waaw bi bi vie comme dugaloo écriture xalifa bergaan bi yow sa sa waa kër duñu am Seyda may ma ma nuyu sama yaay wareefu ramadan waaw meilleure émission religieuse si biir weeru ko ko naa wuute ci monde bi wala ci Sénégal rek si Sénégal bés buñ commencé eh, di ko def nag bi luxal arabia incha allah sa ah waaw man bu boobaa nga jël oustaz Fatickane Fatou Kane ak Aïda Mbaye ak ñoom Fatou Kayre man bu boobaa man bàyyi ma ma dem waree fu Eva daal mooy benn ñaata yi si des mooy sam ñaata <laughs> may nuyu suñu yaay Kuma Wali Diagne Adja Sagar Sall Adja Fattay Adja Aminata Ndiaye Badiane suñu yaay yooyu nga xam ne macha allah taala lu ñor seen kër lu fa baax rek ñu defe ne ñun ñoo ko yeyoo Adja Sagar Sall jërëjëf Fatou bu ndaw waa HLM Grand Yoff xam nga man dama am ay dëkkandoo yoo xam ne ñoo gën ci ay dëkkandoo macha allah taala waa HLM Grand Yoff yëpp du ma tudd ndax bu ma tuddee tur dafa am ñoo xam ne dañ ma naan ah yow commissaire rek laay jël Adja Zeynabu mu jox yëpp rek séddaleel ma ko ca koñ ba yëpp macha allahu taala comme damaa am xaritu commissaire léegi ku ma taseel rek dama lay mbéj. Eh, euh, xool ba xam ah, du noonu. mbaa doom bañ procureur. ah ah kon procureur moo gën a for. <laughs> du baax. du baax kon nag kon baax daal kon ñu teg ko foofu. si si waral ma docteur Aïssata Sy rek ñëpp léegi daal bu Euh, waa Rési nuyu nañ leen yéen ñëpp di kontaan si ñeen mention spéciale madame Ba Adja Umu Ndiaye mi nga xam ne mooy suñu njaatige ci kër gi macha allah tey la tey jii bu ñu demee ba def nii tey yàlla ak moom may nuyu gorom ba Adja Yata di nuyu tamit ay sata si sama doom ji nga xam ne maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla toggi ndogu di nuyu nag waa Turel ñoom madam ñaa soxna ay satu ñaa Adja maam Kumba Ndaw Adja Maam Awa Si suñu ñooñu nga xam ne ak suñu patron nag première daam ak borom këram di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala Adja Maguette kontaan naa yàlla na la yàlla fay may la fan bu gudd ak wér gi yaram ma Cheikh Fall mi nga xam ne ak Adja Fambooj macha allahu taala ci xeetu yónnee yu baax yooyu yàlla na leen yàlla fay kon daal wa axiru daawaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ba jàmm يا لا لا لا يا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا يا لا